titi laal yoon ci xew-xew ba amoon ca fa nga xam ne moom moo di ca grand théâtre Alima Ndione doon ko organiser ci la daal di waxee ci Viviane ak trophée yi nga xam ne moom la amee titi laal yoon wax na ci li nga xam ne moo di showbiz bi ak coow li nga xam ne moo ko lëmbee jamono jile nee na loolee lépp c'est normal showbiz ak coow ñoo ànd tey tamit nag nit ku ci nekk ku nekk dangaa war a am sa maturité man tiiti nag li waral nit ñi di ma dal kenn ku ci nekk di ma wax musiba ak mbelengaan lenn lu ci nekk ñu critiqué ma ko ma ni tekk tekkaaral dafa am loo xam ne adduna amul solo nekkul nit ku juk rek wax yow nga daal di koy tontu mbaa ngay defante ak nit ñi li la war mooy nekk ci sa liggéey li la war mooy jéem a say fans jéem a bégal ñi nga xam ne ay melomaan lañ bëgg musique gu Sénégal moom Titi ba ñu ko laajee ci Viviane Chidid ak bi dox ci seen diggante yéen ñaar beneen bi itam laaj ko itam ci trophée yi nga xam ne jot na ko am mu ne loolee dama cee kontaan dama ko ciy félicité te jël naa trophée boobule may ko bépp ti ci chanteuse bu nekk fii ci Sénégal ñu bokk ko ñun ñëpp ndaxte ndamam suñu ndam la moom Titi wax na wax ju rafet jagleel ko Viviane keneen ki yëkkatiwaat ay wax yu rafet jagleel ko Titi moom mooy Queen Biz Titi dafa daal di jël clip bu Queen bu bees bi daal di def aw vidéo moom itam posté ko ci page Instagram am Queen Biz jëlaat boobule vidéo reposté waat ko ba itam sant ko ci gërëm ko ci ñoom ñaar kenn ku ci nekk yaa ngi sànni sa morom ay fleur maanaam di tagg sa morom ak di bàkkakakeñ sa morom ñoom ñaar mel na ni am nañu ab relation bu jegeyantoo boo xam ne dox na ci seenu diggante Samb Peuzzi ak Dip dara du leen tàqale li nga xam ne ci mariage su Samba Peuzzi dañu ko bloqué ca porte ba ba mënul woon a dugg ca kër ki nga xam ne moom moo di Mame Boye Diao dipp ba ñu ko ca laajee nee na ñàkk déggoo la ak réeroo dong la moo waral polémique bi waaye du dara man la ma fa taxoon a dem mooy gis Samba yi te Samba gis na ma gis naa ko gis na ni teew na te tamit loolu rek mooy li am solo li ma koy ñaanal jamono jile mooy sëyam bi le yàlla na barkeel tey tamit nag yal na suñu borom sàmm leen moom ak soxnaam loolee mooy li ëpp solo nekk di ci ngawti ngawti ak ci def yëf keneen ki coow li dox diggante Sidi Diop ak Wally Ballago Seck mooy Sokono soko dafa wàcce gars yi benn par benn Sokono stress na Sidi Diop kenn ku ci nekk xam na ni yàgg na taxaw ci seen Wally Ballago Seck di ko woowee Baye naan Wally Seck mooy sama papa moom Sokono stress nee na Umaro wax na dëgg ginnaaw bu mu taxawee ne Sidi Diop man maay baayam te man mii di Umaro Wally Seck mooy sama baay kon nag Sidi Diop Wally nekkatul sax baayam far maamam la far moom mii di Sokono stress na Umaro wax na dëgg Wally Seck mooy baayu Sidi Diop Diop Wally Seck mooy bàyyi ci Omaro Wally Seck itam mooy bàyyi ci Matar Diop Soubatel mi nga xam ne sax mu ngi jéem lu mu mën ngir daal di galgal Wally Ballago Seck wàcce ko ba ci suuf Mia Guissé ak Viviane Chidid annoncé nañu ay bonne nouvelle ñoom ñaar ñoom ñaar ñi nga xam ne ay artiste chanteuse la ñu jamono le ñoo bokk nañu ci ñi yëngal showbiz bi Mia gise ginnaaw ba mu beree aw yoonu boppam génn ci borom këram boobule génn ci aw sëyam nekk ci fi boppam waaye bu mu génn gars yi toppaat ko di ko challenge Viviane itamit nag bokk na ci artistes yi nga xam ne ba ñu xewee ba tey mësuñoo xewee ba ñu xewee ba tey mësuñoo def standby ñoom ñaar ñoo ñooñu leen ñu bokk benn seen ci samedi gi ñu dëgmal fële ci monument de la renaissance mi yaa gisee ci boppam moo def boobu lépp annonce di wane te gi mu am ci bokk ak seen ki nga xam ne moom moo di Viviane Chidid la reine di Jolof Band li doxoon ci digganteem ab ak Aby muy coow li nga xam ne jotoon na fee am diggam ak Aby moom mi nga xam ne moo di Viviane Chidid Aby Ndour jotoon déposé aw plainte jagleel ko influenceurs yi nga xam ne doon nañu jóg di dal ci kawam jàppal tànk ki nga xam ne moom moo di Viviane Chidid moom Aby Ndour moomule plaintam boobule cybercriminalité def nañ ci seenu l'enquête ba daal di koy tënk jox ko procureur procureur nag moo ci war a àddu war a sëgg ci yëfile jël ci aw cëggal gooy waaye am na ñenn ñoo xam ne ay bonne volonté lañ leen woowee mooy ñoo xam ne dañoo bëgg jàmm tax nañuy dox tànki jàmm ci Aby waxtaan ak moom ci njëkk ak teraanga ngir mu rocc ci waat plaintam boobule bu ñu sukkandikoo ci source yi nga xam ne ñoo ko jot a moom Aby Ndour fas yéene naa génn ci boobule plainte maanaam na koo retiré ngir jàmm ne ñooy ñu bañ toppee dara ñi nga xam ne ay influenceur lañ toppoon ci ginnaaw Aby di ko gor ay tànkam ba noppi di ko yekk musiba ak mbelengaan ak a jàppal tànk Viviane Chidid te Ousmane Sonko dañu koy delloo ci liste électorale yi mooy le juge bi nga xam ne moo ko doon jugé ci Ndakaaru Njaay wax na ko juge saba si fay ma ca sikki cooru waxee woon Ousmane Sonko ginnaaw bi nga xamee ne boobu lépp xibaar jot nañu ko génne ay yu baree bari ci Facebook bi bi ak mboolem yi nga social négatif bile di xam le ne Ousmane Sonko yàlla la àndal te yàlla moom la àndal askan bi itam ñëpp daal di nañuy def aw ndiiraan takku taxawal jatu ne ay soccet taxaw ci ginnaaw Ousmane Sonko tax na état du Sénégal mbéjeti nañu leen ñaareelu ku mbéj ginnaaw mbéj bu njëkk ba ca Sikicoor ñaareelu mbéj gi moom mooy mbéj gi ñu leen mbéjaat fii ci Ndakaaru Njaay di wane ne Ousmane Sonko jamono jile fa gën a leen 2-0 maanaam ñaari bal ci dara Ousmane Sonko mëne na ko bu Sénégal ginnaaw lànk kandaare Ousmane du bokk ci élection yi ñu dëgmal patriote yi ak ña ànd ak moom daal di ñu ñoom itam sëxiñ ci seenu kaddu ne Ousmane Sonko rek focus ba ñu fas yéene koo fal mu nekk cinquième président maître El Hadji Moustapha Diouf moom ginnaaw bi nga xamee ne juge bi jël na aw cëggal guy wini mel dafa daal di génn xamal gars yi ne leen jubilé teel na ndaxte décision bi du définitive dañuy dem ca fa nga xam ne moo mën a ci cour suprême déposer campagne Ousmane mënagul a bokk tey leen te ànd ak dal moo gën ngeen di kërti kërti ke bërti bërti te ne seen leader bi fa mu fa lay wéy di fa toog ba keroog dem fa nga xam ne moo di ci ngir mu wax ñu la nga xam ne mooy justice dëggantaan tey juge bi ñu gis fii tey nekkul juge boo xam ne doy nañu dëggantaan li ñu doy mooy dem fa nga xam ne moo di ci cour suprême moom suñu fa àggee dana wax li nga xam ne mooy li justice mën a wax moom maître El Hadji Moustapha Diouf waxam joojule ginnaaw ba mu ko waxee ñafare ci commentaire yi ñoom kenn ku ci nekk ñaa ngi koy yekk musiba ak mbelengaan am na ci ñoo xam ne moom dañoo jàpp ne yàlla suñu borom ci boppam moo ñu nattoo maître El Hadji Moustapha Diouf moo ñu nattu ci jëmm joo xam ne dafay xëy rek di woote fitna ak a sàkku fitna ci réewum Sénégal dafay xëy rek daal di jël léppam jagleel ko Ousmane Sonko di ko xeex guddi ak bëccëg ay kàddoom lépp ci Ousmane Sonko la yéenam bis bu jotee réew mi mooy faagaagal ak a galgal Ousmane Sonko moom maître El Hadji Moustapha Diouf ca commentaire yekk nañu ko ca musiba ak mbelengaan ca beneen wàll ba moom avocat Ousmane Sonko yi kenn ku ci nekk rafet lu nga décision bi nga xam ne juge bi jël na ko muy cëggal guy woo xam ne cëggal guy woo ànd ku yoon la metre maître Bamba Cissé moom dafa daal di wax état bu Sénégal ak ña àndal ci ay avocat ne leen nag jarul ngeen di dem ci cour suprême ndaxte loole su ngeen ko defee itam du jariñ dara yëf fi jàll na ba noppi ndaxte juge bi bi muy jël aw cëggal gu yam dafa daal di supprimer bloqué lépp loo xam ne cour suprême mënoon na caa wax ngir mën a daal di niilal bi lépp décision bu demee itam dañuy sonal seen bopp li gën ñu organiser ay élection élection yu baax te jaar yoon élection yoo xam ne ñëpp ci mën a bokk du am xujj wala seen du ñu seete kenn te itam ñu tànn ña war a bokk ak ña warta bokk yaakaar nañu ne itam conseil constitutionnel bu ñu fa àggee dañu tëral li nga xam ne moom la leen yoon may ñu daal di koy wax kéeg bu ko war a bokk ñu bàyyi la nga daal di bokk Aminata Touré itam noonu la ko waxee Ousmane Sonko décision bi nga xam ne jot nañu koo jël teg ko ci aw ndoddam décision bu baax la te a diisoo aw askanam ngir jéem a waat ak moom donte ni sax def nañ fi ay jëf yoo xam ne jëf yu takkoo takku la yu tax askan bi bàyyi leen askan bi wan leen ginnaaw askan bi daal di leen di fàtte askan bi daal di leen di mere bu ñu ko continuer nii du yàgg dara ñoom ak askan bi danañu juboo ñoom ak askan bi danañu déggoo li ci des mooy ñu jéem a xool naka la ñuy def ba élection yi ñu man ñu def ko élection yu jaar yoon élection yoo xam ne dara du ci sikk élection yoo xam ne kenn du ci am sikk wala nga cay sàkk dara moom Mimi Touré noonu la yëkkatee ay kàddoom ginnaaw bi nga xamee ne Ousmane Sonko jël nañu aw cëggal guy fas ne koo delloo ci liste électorale yi